acca loolu am na solo ñu dem ci page 2 bi actualité làmb ñu gis benn phénomène bu bees muy jël ñaari avance ba ñetti avance gis nañ ko ci bàll Gaye numéro de nan nga gisee loolu signé ñaari contrat ba ñetti contrat bay laaj cinquième sax <laughs> waaw xam nga phénomène bu doy waar la mais bon du ma wax gulet parce que tey ki nga njëkk a dalal ci émission à la une. Hmm. muy Moustapha Gueye ci fin de carrière am pratiquement amoon na ñetti ñetti contrat. Hmm. ak Gaston. mais aussi boobu dafa fekk mu nekk ci fin de carrière. Hmm. Euh, mu nekk aussi un challenge non seulement. financier lay gën a doon que un challenge sportif parce que boobu aussi il fallait que Tafa ci fin de carrière am mu assurer ay ay arrière am assurer aussi euh, retraite am mm-hmm. te loolu doon na ko may mu am lu lu lu dëgër lu mu sukkandiku mm-hmm. pour reconversion mu mën ko réussir mm-hmm. donc euh, loolu amoon na ci jamono jooju mais ci fi mu amee nii euh, moo jaaxal ñëpp parce que bu dee fin de carrière di nga xam ne kii day togg fin de carrière mais bu dee ku mel ni Balla Gaye mu jël ay ñetti avance bay laaj juróom wala ñeent mën na jaaxal ñu bëri parce que làmb du doxee du doxee noonu surtout ngay jël mbër yu nga xam ne sur le plan sportif xëy na bu làmb doon dox nu mu war a doxee ngay tracer sa carrière euh, sa plan de carrière pour nga dajeek ñoom dafa am condition yu war a daje. Mhm. mais jël mbër bu nga xam ne dafa nekk su contra xamuloo dina daan xamoo du xamoo day daan xamoo day daanu. Mhm. te bu njëkk laa li gën logique bi. moo doon nga jël ku jóge ci ndam. Mhm. ku jóge ci ndam fëgg sa bunt nga ubbil ko. mais bon tey Balla jël na. Boy Niang numéro 2. Mm-hmm. Boy Niang numéro 2 mi ngi ci contrat. Mm-hmm. Eh, xamoo lan la fay jëlee digganteem ak Tapha mm-hmm. nga jël ko ñu ne déet na waaye nga nga nga ràngu eh, avant loolu nga ràngu Bombardier. Bombardier mi ngi fin de mi ngi mi ngi fin de carrière. ñu ne déet na waaye nga jël Gris Bordeaux pour acte 2. loolu yëpp boo koy xool dafa mel ni c'est une démarche bu bees. Uh-huh. démarche bu bees la bu nga xam ne man damay jàpp ni toujours aspect sportif bi dañ koy relégué au second plan. li nga xam ne moom la ñu gën a xool mooy l'aspect business. Mm. business bi moom la ñu gën a fësal que sport bi ci loolu te loolu yi tamit dañ koy nangul mbër bi. Mm. parce que aussi di nga toll ci jamono fu nga xam ne. Euh, euh, li ñaan ku yàlla tàccu ba feccul dootoo feccati ba mukk mm. te ñoom toll nañu fu nga xam ne dañu war a assurer seen carrière assurer seen reconversion te loolu je pense que il faut nga am xaalis bu takku pour mën a def li nga bëgg a def te Balla am na ay projet am na ay ambition mu am ci ginnaawam euh, ku mel ni Aziz Abdoul Aziz Alé Ndiaye nekk un man très averti euh, mu war ko encadrer pour teg ko ci yoon bu nga xam ne tey ku xool Moustapha euh, Moustapha Gueye tey amul ku muy ñeetaani nga xool tey l'exemple le plus extraordinaire mooy Mohamed Ndao Tyson mhm. qui a totalement réussi sa reconversion nekk idolu Balla Gaye mm-hmm. nga xool tey Yaxya Diop Yékini mu rek mu mu mu réussir reconversion mm-hmm. donc ñooñu tey boo leen xoolee xool li ñu am ci làmb yow war nga mun a am lu ko ëpp war nga ko mun a dépasser mm-hmm. parce que Balla toll na foofu euh, carrière am toll na foofu donc je pense que tey euh, li mu def noonu business moo ko gën a lal que que carrière sportive ok business moo ko a lal mais risques yi lan na ay xam nga risques yi moom euh, am na ci surtout ci côté promoteur bi. Mm-hmm. parce que tey euh, yàlla rek a xam làmb c'est un sport de combat. Mm-hmm. Euh, te risque bi mooy y a des risques de blessure. Mm-hmm. lu nekk mun na ci am euh, donc risque de blessure yooyu. mën na tey gàllankoor ce plan bi nga xam ne moom nga moom moom nga teg pour dérouler ko mm-hmm. mais dañuy ñaanal yàlla mbër yi yàlla may leen wér mm-hmm. dara bañ leen a dal ba li nga xam ne sumb nañ ko ñu mën ko eggale mm-hmm. ñuy Gaston mu bañ ci am benn pàkk pàkk wala benn lëndëm lëndëm lépp leer ba li nga xam ne mooy ambition mu mën ko eggale loolu lañ koy ñaanal mais nekkul lu nga xamante ni nii risque yi graaw na sur le plan financier amul risque parce que mbër bi par A plus B day jot. day jot day jot xaalisam. Mm-hmm. beneen risque bi nga xam ne nag moo ci am moo di ni tey par exemple mën nga am ndam. Mm-hmm. ki ngay bëreel am safaanu ndam. waaw nga bëreek moom mu am victoire ci yow. Mm-hmm. donc loolu nekkatul logique sportive. donc yooyu yëpp da ci jara sóoraale parce que xaaroon ba xam ki nga war a bëreel fu muy mujje nga soog ko jël moo gënoon. sportivement parlant. mais tey nekkatul euh, dynamique sportive mais li nga xam ne moom la ñu gën a gis moo di ne daal sport business ba Mohamed Ndao Tyson doon wax. Mm-hmm. tey jii xale yi dañ ko dëggal. Ah, Gris sax mi ngi ñaar laaj beneen avance. Gris mu ngi xaar xaar te loolu tamit mën na yokk kase bi soo xaaroon ba adversaire tey par exemple Balla Gaye bu xaaroon Boy Niang ba mu génne ci combat bi su ko jëlee yaakaar xaalis bi mën naa gën a yokk. waaw mën na gën a yokk bu ko bu ko jëlee. Mm. mais li mu def nii aussi euh, maanaam euh, ñetti avance yu daje ci biir kër. Mm. saawaay moo gën par benn benn wóor na suñ borom million million yu dugg ci kër ba toll ci limub cent wala deux cent la nga ca mën a def bokkut ak nga ñu jox la avance su trente million wala cinquante millions. Mm-hmm. donc tey ñetti avance xoola ñetti avance su Balla Gaye même supposons mu bëre cent millions rek nga jox ko ñetti avance mm-hmm. mais saawaay ñetti avance yu dajaloo la nga ca mën a def moo gën avance yu nga xam ne par par toq lay dal par attaque at maanaam yow ànd nga ci à 100 pour cent. waaye yow ànd naa ci 100 pour cent xaalis bu dajaloo man mi ay million bu duggoon sama kër du génnaat. waaw million te wàccaay bi benn benn yoon lay. benn yoon lay doon parce tey jii Balla mi ngi ci dynamique bu nga xam ne bu préparé bombardier ba pare. Mhm. dootul jar yenn coono yi maintien rek lay def sur le plan sportif. Mhm. Euh, te mi ngi waaj bu demul tey dina dem suba dina mhm. dem dina dem euh, euh, à Paris pour peaufiner sa préparation. donc préparation da nga un an wala six mois di xaar mm. gàddaay ga defoon na deux ans presque bëriwul tey li mu pertoon ci moment gàddaay boobu mën na ko rattraper ci moment bi mm. te mi ngi koy rattraper mm. donc moi je suis pour loolu parce que bokk na ci li nga xam ne day defar sa ëllëg mais aussi dina dunda làmb mais aussi dina dundal làmb làmb nag daan la ak daanoo su Balla Gaye daanoo ci Bombardier lan la ko mën a ci combat ak Boy dootu ko yàqal dara ci financièrement du la yàqal dara sportivement mën na la yàqal dara parce que bu fekkee ni tey da nga am jóge defet sa diggante ak Bombardier euh, pression bu metti ngay bëree sa diggante ak booy Niang numéro 2 tout dépendra aussi ci résultat Boy Niang numéro 2. Mhm. bu fekkee ni Boy Niang numéro 2 dafa gañe boobu pression bi day gën a yokk bu dee dafa ñàkk ñoom ñaar ñëpp dañuy am pression wu bañ a tegale ñaari defet mm-hmm. waaw te Balla day ndaanaan bu nga xam ni buggul di tegale ay defet mm-hmm. donc euh, quel que soit le résultat bu ci amee ndam pression la pour moom parce que bu amee ndam adversaire am am safaan bu daanee bombardier adversaire bi am safaan ba loolu dafa mel ni da ngaa jël ba pare dellu ginnaaw mm-hmm. mais boo amee ndam mu am ndam challenge bi foofu lay neexee donc loolu mooy neexal yëf yi mais contraire bu ci am rek dina xaw a euh, entaché tuuti euh, cafka combat bi sur le plan sportif dina am risque ci ki nga xam ni moo daanu dem jël ki daan wala ñaar ñi daanu. Mm-hmm. troisième combat bi nga xaar muy digganteem ak Gris Bordeaux mu mel ni boobu sax taxul mu dugg amateur yi torop torop mm-hmm. coow liñ ci doon xaar gis ko ci par rapport ak Boy Niang ak Balla keroog bi mu taxawee. Mm-hmm. loolu moo ko waral est-ce que revanche bi teelul. waaw revanche bi teelu la ah, parce que revanche bi euh, euh, ki nga xam ne moo di Gris bëgg na ko bu yàgg. Mm-hmm. Euh, te sax bu fekkoon yëf yi jaar na yoon peut-être ñoom ñoom ñaar la ñuy njëkk a tënk. bu dul woon li ci li ci li ci amoon yëpp. Mm-hmm. tu moo tax euh, tey seen revanche nit ñi dañ ko soxla ndax seen combat bi passé Gris Bordeaux plateau bu mu toog da lay wax ni Balla mi ngi may lim mais man limuma sama bopp ci ay defetam donc moom reconnaîtreul ni Balla Gaye daf ko daan parce que nee na ay affaire administration yooyu du jël moom li mu gëm mooy. wëlbët gàng wala tell mu ne këpp. Mhm. ponkal bala nga koo daan da ngaa toog ci dënnam moom loolu la gëm. Mhm. Balla Gaye nee na ndam nu mu ko amee baax na palmarèsam ci la waa ji bokk. mais bii mooy la clarification. donc war na leer li tax aussi ci diggante bi euh, xëy na tàng-tàng biñ ci doon xaar amu ci. Mhm. dafa am lu leen rapproché ñoom ñaar. Ah, muy l' association des en activité. Gris président Balla nekk ci vice président et mu ñu ñu mu am lu leen gën a boole. Mm-hmm. ci bataille bi nga xam ne ñoom moom la ñuy mëne pour làmb ñu gën a jox gëdd mbëru làmb. Mm-hmm. pour que tey euh, gàllankoor wala coono yi ñuy teg mbër mu wàññeeku. Mm-hmm. combat boobu nga xam ne ñoom ñaar ñoo koy mëneendoo ensemble dafa nekk komba bu noble bu nga xam ne dafa dem ba rapproché leen ba ñu am ay affinité mais nag bu ñu tegee loolu fële. tooyal xaftaan des ci dañu war a jëflante diggante mbër ak mbër. même si respect ak affinité am na mais bu combat taxawee ku ne da nga soxla ndam pour yóbbu sa kër. jàpp nga daal combat boobu dina. saf ah dina saf sap bu Gris nekkee à 100 pour cent Balla nekk 100 pour cent bu ñu dajee par force dafay neex. Boy Niang moom tamit dafa mel ni daal Balla Gaye moo ko dal parce que dafa jóge ci défaite digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 mu ñëw nag jël Tapha Tine. waaw koo xamante ne Lac de Guiers yóbbu lu ko dara ñu ni déet waay ñëpp tiital ko ci loolu mu ñëwaat jëlaat Balla Gaye numéro 2. waaw waaw waaw risque bu risque ay risque la moom Siteu la tànn moom li Tyson doon wax feebar yëpp dañ fee nekk tànn fi mu nekk nii nag ñëw nga tànn corona. waaw. <laughs> waaw waaw <laughs> pour réactualiser ko parce que boobu Siteu moo xewoon. Mm-hmm. mais jamono ji coronavirus moo xew waaye dañuy wopp yëpp dafa taxaw. Mm-hmm. moom moom Boy Niang numéro 2 cappaacoli gi. Mm-hmm. ni jox leen ma corona ma gàddu ko. ndaxte wax dëgg yàlla ponkal mu toll ni tafaatin. borom takk ci rib ak jamono ji ni ma ko gisee. moom tamit yendoo mer. waaw fanaanoo mer. yeewoo mer bëgg koo sotti Boy Niang numéro 2. Mm-hmm. combat boobu dafa métti Boy Niang dafa yor combat bu métti. Mm-hmm. client bu nga xam ne fu mu koy yàqalee la ñëpp di xalaat. Mm-hmm. mais c'est un lutteur bu nga xam ne euh, fitam ak intelligence tactique am. may na ko mu bëre ku nekk. dëgg Boy Niang. boo déggee ñuy wax capaacoli. mooy capaacoli parce que dafa muus. Mm-hmm. il est très intelligent te tactiquement ci mbër yi ëpp intelligence tactique parce que lutte mook football mooy li ñuy wax c'est de l'intelligence en mouvement. Mm-hmm. xëy na boo koy seetaan mën nga ko jàppee leneen mais bu mbër bëree ba pare ba ñëw toog sa plateau di la décortiquer combat ngay xam ni science la làmb. Mm-hmm. c'est de la science. ku intelligent wul mënul nekk mbëru làmb. et puis yàlla dimbali na ko mu mën a bëri ak ponkal tamit. waaw mën na ku ne. parce que tey dama koy xoolee Moustapha Gueye mi nga dalaloon ci ci ci ci masaan am quatre-vingt-dix jàpp quatre-vingt-quinze kilos ku nekk mën na bëre ak yow. bi muy daan maam njëmaan ñëpp dañ woon fan la koy jaar. Mm-hmm. mais jël ba ko daan poids léger daan ko poids lourd dafa jafe. Mm-hmm. kenn musul gis jël bu extraordinaire noonu. te tey bu ñu doon def tobu jël yëpp. day bokk ci top une bi ba léegi. donc ça veut dire que ponkal bu xësee ba am quatre vingt dix quatre kilos ku mu mënul bëreel ci làmb amul. ku mu mënul daan boo mënee bëre. Hmm. koo mënul daan amul parce que des fois mbër bu intelligent da lay fekk ci sa doole mu daan la ci sa doole.